asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu mbokki Sénégal benn bawol bawol de moo nekk fii am ab laaj bu muy laaj miinuma ndakaaru nag waaye ñeent ñi ma yaakaar ni miin nañ ko laa koy laaj muy safooru Saône Noire safooru taxi Saône Noire safooru Tata safooru Dakar Dem Dikk safooru Njaga Njaay ma leen di laaj daal yéen ndax kenn ci yéen mas naa dox ba yem ci mbooloo mu mat junniy nit ci biir Dakar ñu leen defal ay test ndax kenn ci yéen rek gis na ko su ngeen ko gisee ngeen dimbali nit ñi ci place bi ndax président de la république <clears throat> ak Abdoulaye Diouf Sarr dañuy fooye xeli sénégalais yi corona kenn waxul ne amut adduna bi yëpp la am waaye nii ñu koy defee Sénégal ku ne xam na ni wérut plan la bu mu tëralati rek bëgg a tëjati nit ñi ba def njaaxum waaye corona man yaakaar naa Sénégal deful yàlla lu tax amul Guinée kenn waxatu ko Guinée kenn waxatu ko Mauritanie kenn waxatu ko Mali kenn waxatu ko Guinée kenn waxatu ko Guinée Conakry te ñii ñoonu wër Sénégal rek nga koy dégg te Sénégal bu Macky Sall doxee ay yitteem ba mat mu ñëw bëgg tënk sénégalais yi di leen tuurug lëndam te xalifa général da Tidiane de waxoon na ni nga wax sénégalais yi dëgg yow ak Abdoulaye Diouf Sarr te waxu leen sénégalais yi dëgg de waxu leen sénégalais yi dëgg de sama audio bii nag képp ku ko jot na nga ko partagé ba Abdoulaye juuf Sarr ak Macky Sall jot ci ñu xam ne sénégalais yi jiite leen taxut ñu di dof taxut ñu di animal ay nit lañ yoo ami xel di xalaat fi ngeen di testé nit ñi wax leen adresse bi nit ñi man faa dem teg seen bët ba gëm li ngeen di wax wala fa ngeen tëral ni nit yu corona ngeen wax ko nit ñi ñu waxu ba teg ci seen bët mën a gëm li ngeen di wax ndax kat ci caaxaan rek ngeen nekk ci caaxaan dong ngeen nekk de amati nga gum narati nag moo muy def yi muy def yépp waaye sénégalais yéen seen bopp yéen a jot na ngeen jël seeni responsabilité ndax Macky Sall du jox kenn dërëm boo lekk mbaa boo naan bu ngeen sàgganee ba mu tëj leen seen kër yi ngeen di deeg yéen ak seen njaboot ci ab xiif ci lu dul dëgg ah yéen a koy def seen bopp de ci mbedd mi ci corona moo gën dee ci sa kanam njaboot ak ab te Macky Sall du jox kenn dara loo lekk ak sa njaboot ba lay te tëj réew mi rek la narati yii muy def yëpp ay caaxaan la ay caaxaan dong lay def corona ku ne xam na ni am na waaye li ma wértu wur ma mooy yéen ñeent ñoo ñi ma laaj ku ci mas a yàpp ku corona wala nga mas a gis fi ñuy defee testi corona yi walla nga mas a gis fi ñu tëral ñu corona ngeen baaxee na ko ndax xam naa donte la journaliste yi li ci ëpp Macky Sall lañu àndal ak moom lañu àndal waaye tele ci poos yaa ngi fi te mus kenn musta dox ba jot ci réseaux sociaux yi ba gis mbooloo moo xaay dañ leen a wone ñu ni ñii la tes test ñoo corona kenn mësu ko gis kenn mësta gis mbooloo mu tëdd ñu ni ñii ñii dañoo corona buñ xëyee daal tiim seenu rajo xool la leen neex ñu wax ko heure bu leen neexee ñu wàcce heure bu leen neexee ñu yéegal sénégalais yi nag am leen fulla am leen fayda Macky Sall politique bi mu nekk senegal depuis neuf ans amalul Sénégal njëriñ lu may politique rek ngir yàlla ak yonent bi Macky Sall bàyyi sa politique bi te ñaari at yi la fi dese nga jéem ko lëggeel Sénégal te ba sa caaxaan yi nga nekke lillahi wali rasulihi ëllëg am na de ëllëg am na de te fen wallahi nee nañ jullit du ko def jullit bu bon dana sàcc jullit bu bon dana njaaloo waaye jullit du fen jant boo fenee rek yaa génne sa bopp kenn génnewu la te yéen ci fen rek ngeen dëkk Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr ak seen gouvernement bi day leen wax nit ñi dëgg li xalifa général de Tidiane wax day leen wax nit ñi dëgg te bàyyi seen caaxaan yi ngeen nekkee corona nekkul benn troisième wàgg buy jóg ko wàcc néew fi Macky Sall mooy yëkkati mooy wàcce moo ko Abdoulaye Diouf dara du ci dëgg. te leer na ma ni junni nit yi ñuy lim naan dañoo dañoo dee ci corona leer na ma ni li dee ci corona lépp mënta ëpp cinquante personnes li ñuy wax lépp dara du ci dëgg senegal yi nag war ngeen xam Macky Sall juróom-ñeenti at ku ko nekk ak nit politique rek la nekkee ak yow lu mu yëkkati lu ne xam nga fa mu moom waaye ñaari yi daal na nu ci dimbale moom troisième manda ak loolu laal Ousmane Sonko ñaari yi daal loo ci def. yaakaaruma ni da nga yeggale sa mandat xam naa ni nag tappale yi nga yëkkati yépp li ci ëpp lépp Ousmane Sonko tax waaye boo ko laalee boo ko laalee xale yi nee nañ daañu la laal de boo ko laalee xale yi daañu la laal te war ngaa xam ni amoo lu téye sénégalais yi amoo lu ko téye boo bëggee yeggale sa mandat bi ci jàmm bàyyil Ousmane Sonko ci jàmm te bay sa tappale yi te jéem a lëggéeyal senegal te xam ni sutum xel wala gën a judd taxul sama borom teg la ci bopp réew mi bàyyil sa caaxaan yi président day wax dëgg di def dëgg bëgg nitu réewam bëgg réewam yaakaar ji lañ amoon ci yow ba teg ko ba ba teg ba ba teg eh, réew mi say loxo waaye kat war nga askan wi de war nga askan wi te sénégalais yi dindi na dindi nañ la xooli xooli sénégalais yi nekkatoo ci de boo gëmee boo gëmul nekkatoo ci xooli sénégalais yi te wallahi bu sénégalais yi amul atte amul ñaan amul atte amul ñaan ndax kenn du leen déglu li ngay sombi daal na nga góorgóorlu ba naan ko rek salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu audio bi gudd na nag lool waaye nag lii dama ko mënta ñàkk a wax ndax nax yi dafa métti yow doo wax kenn fi ñuy defee test yi kenn mësta gis fi ñuy defee test yi kenn mësta gis mbooloo mu corona man nga xëy ci dëkk bi ay weer doo gis ku ni daa corona nga topp ci nit ñi di kàcc di fen di lëf di lu la neex rek nga wax ku nit ñi lu la neex nga wax ku nit ñi rek ndax na nekkaat ci ci pexe rek dëkk bi boo ko bëggee du sotti lu leer la wax boo ko bëggee tëjaat du sotti de salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi baalu ak ñëpp nag di baal ak ñëpp ci audio bu gudd bi waaye lii dafa ma ñor nekk sama xol bi nax yi ngay nax nit ñi dafa metti trop kenn ku ne ngi naan corona troisième vague corona troisième vague corona troisième vague dara amu ci lépp yow a yàgg Abdoulaye Diouf Sarr yéen ko programmé di yëkkati di wàcce bu la neexoon suba suba corona bi jeex tàkk Sénégal parce que nag yaakaaruma ni Sénégal nag def na yàlla lu ko réew yi ko wër defut te kenn déggatu ko fenn fu dul Sénégal lépp nag yow la corona am na waaye nii nga ko waxee moom say tappale képp la ak bëgg def njaaxum salaamaaleykum wa